kon boo weesoo juri kër yi ya des asaka waru ci mel ne fas asaka waru ci baax la berkelle noonu mbaam asaka waru ci jaam ci jamono yi jaam xewee asaka waru ca loo bari bari ay jaam du tax asaka war ca wala fil mutawallidi du jaageenu ci aji juddoo ja dina zibaay ci kéwél ya wal xana bi ak gàtte ya loolu ñu wax ci wolof warale warale mooy lay ndeyam ak lay baayam bokkuñu xeet mel ne bëy yi dañoo dem ca àll ba tase fa ak kéwél ya ñu jotee ñu góor a jigéen di jotee ba bëy yi ñëwee ci kër gi daal di am doom xam ne kon loola bëy mooy yaayam kéwél nag mooy baayam lu mel noonu moo tudd warale lu mel noonu loo ko bari le bari le asaka du ca war washurootu wujjoo bi xaa sarti waram nag an takkoona moo ñu nekk nisaaban di nisaab kaamilan ji di aji mat milkante di ak moomeel kaamilan gu di aji mat xawlan akum at kaamilan mu di aji mat maha maji isaahi ànd ak dikku ànd ak dikkuk laajkatu asaka ba in kaana dem am na jur ba la cee asaka war mat nisaab lu matul nisaab rek asaka waru ca teyit nga moom ko bu wér bi la ko dénkee rek kon moomoo ko asaka du ca war ko moom bu wér teyit ba nga ko moomee léegi mat at bu dee jamono yi nga xam ne nag am nañ laajkatu asaka balaa asaka war laajkatu asaka ba ñëw nga xam ne boo gaawee génne te kooku ñëwutit bu ñëwee faaw nga génne waat bu dee léegi si nga xam ne nag amut laajkatu asaka yow ci sa bopp yaay farlu rek ci su waxtu jotee nga daal taxaw ci génne asaka ja ci nam waree amal ibnu daal gëléem ya fa fii kulli xamsin nekk na ci bépp juróomi gëléem chaatun benn gàtt jasaatun te mooy jasan waaye moom maa mooy ba nga xam ne aw fat matal na sanatan at wa daxalat te mu dugg fi saaniir ca moom ñaareel ma mi ne da ni ci xar lañ koy génnee in kaana dem nekk na fil baldi ci dëkk ba ak da anu xar wal maasu ak bëy sawaan di way yemoo awit da anu wala xar nekk axla ba di gën a not mooy di gën a bari nee na gëléem ci lay tàmbalee li fekk amoo lu mat juróomi gëléem asaka waru la boo amee juróomi gëléem nag asaka war la waaye doo génne gëléem gàtt nga génn nga génne benn gàtt te moo tudd jasan mooy bu am at ba dugg ci atum ñaareel ma boobu ngay génne muy asaka juróomi gëléem ya bu fekkee ne xara fa ëpp gàtt ba ci xar nga koy génne bu fekkee xar ak bëy ñoo fa yemoo ci bari waaye it ba tey ci xar nga koy génne su fekkee béy fëpp nag nga door koo génne ci béy moo tax ama isa kaan daal dem nekk na almaasu béy ak la ba di gën a not fa shaatu kon gàtt ba min hu tukkee na ci béy fekkee béy fa gën a bari ci foofu moom kon nga koy door a génnee ci béy waaye bu fa xar gënee bari ci xar nga koy génnee moom gàtt boobu bu fekkee ñoo fa yemoo ci bari waaye it noonu ilaati siin ba juróom-ñeenti gëléem la dalee juróomi gëléem ba juróom-ñeent doo soppi benn gàtt bi nga daa joxe at mu ne fa isa balaxat ndéem jot nañu xasaran fukk fa fii xaa ko nekk na ca shataan ñaari gàtt ila arbaxat xasara ba fukk ak ñeent maanaam soo amee fukki gëléem foofu nga tàmbalee joxe ñaari gàtt muy saasaka ba ci fukk ak ñeent nag doo soppi ñaari gàtt yi fa isa balaxat ndéem jot nañu xam sa taxasara fukk ak juróom fa fii xaa ko nekk na ca talaasu siyaahi ñetti gàtt su fekkee ne mat nañ fukk ak juróom ci ay gëléem nag nga joxe ñetti gàtt muy saasaka fukk ak juróom nag ba fukk ak juróom-ñeent doo soppi ñetti nga daa joxe fa isa bala xam dem jot nañu fisiri la ñaar fukk fa fiihaa ko nekk na ci ñoom arbaxu siyaahin ñeenti gàtt su fekkee am nga ñaar fukk gëléem daal di war a joxe ñeenti gàtt muy saasaka ilaa arbaxin ba ci ñeent wax si naan ñaar fukk la dale ci ñaar fukk nag ba ñaar fukk ñeent doo soppi ñeenti gàtt yi nga daa joxe fa isa bala xam dem jot nañu xam san juróom waa si naan ñaar fukk ilaa xam sin ba juróom wa talaasin ak fanweer fa fiihaa kon nekk na ca bintu maxaadin bintu maxaad ñaar fukki gëléem ak juróom ci la ñuy tàmbalee joxe gëléem tudd bintu maxaad bintu maxaad nag mais gëléem gu jigéen goo xam ne am na at ba dugg ci moom ñaareel ma ba taxu naa waxi yow moom allati mooy ba nga xam ne daxalat tàbbi na fi sanati ci at ma ak saaniyati may aj ñaareel fa in lam tëggu ndéem amut loxoo di ko ñeel fab nu la boon kon ibnu la boon waxoote moom maa mooy ba nga xam ne daxala tàbbi na fi sanati ci at ma ak saalisati ma di aj ñetteel su fekkee ne da nga am 25 ci gëléem war a joxe bintu maxaab waaye bintu maxaab amoo ko ci sa jur bu la neexee joxe ibnu la boon rek moom bu góor lay doon waaye day am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel xam ne kon dana magee bintu maxaab benn at fa isa balaxat ndem jot nañu sittan juróom benn wa talaasin ak fanweer ilaa xamsin ba juróom wa arbahin ak ñeen fukk fa fiihaa kon nekk na ca bintu la boon bintu la boon jàppal ne 25 yi bintu maxaab moo ca war ba ba nga ñëw ci 35 doo soppi loolu 35 nag bu tegalee benn muy 36 nag waaw kay foofu ngay tàmbalee joxe bintu la boon bintu la boon nag muy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ma la dalee nag ci 36 ba ba nga ñëw 45 nag doo soppi loolu moom rek ngay joxe moom bintu la boon fa isa balaxat ndem jot nañu sittan juróom-benn waar baxi naa ñeen fukk ilaa sit na ba juróom-benn fukk fa fiihaa kon nekk na ci xiqatul xiqa 45 nga mujjën a wax bu tegalee benn muy 46 nag foofu ngay soppee di joxe xiqa xiqa nag mooy koo xam ne am na ñett am na ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel moo tax danaa waxi ya moom allati mooy ba nga xam ne daxala tàbbi na fi raabihati ci atum ñeenteel ma kon la dale ci 46 ba ba ngay ñëw ci 60 doo soppi di joxe rek xiqa fa isa bala xan dem jot nañu ihda benn wa sittiina ak juróom benn fukk ilaa xamsin ba juróom wa sabxina ak juróom-ñaar fukk fa fiihaa ko nekk na ca jasan suñ jasan wa hiya moom allati mooy ba nga xam ne daxala tàbbina fil xaamisati ci atum juróomeel ma daa wax nag bu ma tee soixante et un la fa dalee ba soixante quinze da ngay sax ci di joxe rek jasan mu daal nekk sa asaka jasan nag mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñeenti at ba dugg ci atum juróomeel ma fa isa bala xat dem jot nañu sittan juróom benn wa sabaxina juróom-ñaar fukk ilaa tisaxina ba juróom-ñeen fukk ilaa tisaxina fa fiyaa ko nekk na ca binta la boo nit ñaari bint la boon su gëléem yi matee nag soixante-seize la ca dale ba ci quatre-vingt-dix kon asakaam mooy ñaari bint la boon ñaari bint la boon lay joxe ci jamono yam matee soixante-seize ba keroog muy mat 90 amul soppi ci ñaari bintu laboon yi fa isa balaxat ndem jot nañu ida benn wa tisiin ak juróom-ñeen fukk ila ishiina ba ñaar fukk wa mi atin ak téeméer fa fiyaa ko nekk na ca xiqataani ñaari xiqa léegi nga mujj wax mooy 90 bu tegalee benn muy 91 nag ba ba ngay ñëw ci 120 mën nga ni sax ba ba ngay ñëw ci 129 moo gën a gàtt su boobaa ñaari xeq rek moo war a nekk sa asaka moom ngay joxe ci diggante boobu doo kenn benn yoon cent vingt-neuf nag bu tegalee benn mooy fa isa saadat ndem yokku nañ ndem ëpp nañ xalaa zalika ci loolu taxa yara kon soppiku alwaaji bu aji war ja cent vingt-neuf bu tegalee benn muy cent trente foofu na ngay tàmbalee ñi seet sa jur par ay quarante ak par ay cinquante 40 bu ne nga joxe ci bintu la boon jut 50 bu ne nga joxe ci xiqa fa fii kulli arbaina nekk na ci bépp ñeen fukk bintu la boon bintu la boon wa fii kulli xamsina nekk na ci bépp juróom fukk xiqatun xiqa moom daal boo xasee matale 130 ak lu jur gi bari bari bari dañ koy topp nii rek def ko par ay 40 par ay 50 su fekkee lépp mën naa nekk ay 40 baax na bu lépp may nekk ay 50 baax na su teqalikoo lay nekk ay cinquante lay nekk ay quarante ba tey baax na quarante bu ne nga joxe ci bintu la boon cinquante bu ne nga joxe ci xiqa li ki bu doon ne cent trente képp yem ci day doon ñaari quarante ak benn cinquante ñaari kaa ñaari quarante yi bu ne nga joxe ci bintu la boon benn cinquante bi nga joxe ci xiqa bu yooyu rek nag wa amal baqaru daal na ya fa fii kulli talaasina nekk na ci bépp fanweer min haa ci ñoom tabiyahun tabiyahun moom nag jasaxun day nekk jasaxu bu góor aw jasaxatun wala jasaxa bu jigéen waxoo moom maa mooy ba nga xam ne aw faa matal na sanatay ñaari at nag moom li fekk amoo ci fanweer rek asakat la war boo amee fanweer nag war a joxe wenn nag woo xam ne am na ñaari at bu la neexee muy góor bu la neexee muy jigéen ñu koy tudde tabiyon woo fii arbaina nekk na ñeen fukk musinat musin na laa tuuxasu moom def ko jàpp illaa unsa ndare muy jigéen la dalee 30 ba trente neuf doo soppi li nga daa joxe mooy tabixu boobu bu tegalee benn muy quarante nag foofu ngay joxe musinna musinna nag moom mooy bu am ñetti at te it moom bu jigéen rek lay nangu nga joxe ko ba tax mën naa wax yi moom al mu wafiyat mooy aji matal ja talaasa sinina yetti at su ma fi sittina topp nekk na juróom benn fukk tabixaani ñaari tabixu la dalee ci quarante ba ba ngay ñëw ci cinquante neuf doo soppi musinna bi nga daa joxe cinquante neuf nag bu tegalee benn muy soixante nag nga joxe ñaari tabixu su ma fii kulli salaasina topp nekk na ci bépp fanweer tabihun tabihu wa fii kulli arbaxina nekk na ci bépp ñeen fukk musinnat musinna boo xasee am nag soixante moom ba joxe ñaari tabihu yooyu léegi da ngay topp rek par fukk bu ci yokk rek ñu cher sa jur ba xam bu lépp mënee nekk ay trente trente bu ne nga génne tabihu bu lépp mënee nekk ay quarante quarante bu ne nga génne musinna bu jaxasoo lee mën a nekk trente lee mën a nekk quarante trente bu ne nga joxe ca tabihu quarante bu ne nga joxe ca machine na waaye lu jur ga bari bari moom noonu rek lay wéyee ni ki soo amee juróom-ñaar fukk ci misaal am nga benn trente ak benn quarante nga joxe ca trente ba tabihu joxe ca quarante ya machine na noonu rek lay wéyee soo amee nag léegi quatre-vingts am nga ñaari quarante nga joxe ñaari machine na bi yooyu rek nag ak lu jur gi bari bari ilaa xisirina ba ñaar fukk bi mi atin ak téeméer fa yu xayaru kon def na tàndoo asaahi aji laaj asaga fii ak si talaasi musinnaatin ci jàpp ñetti machine na aw arbaxati arbihatin wala ñeenti tabiyon nee na soo demoon nag ba am cent we ci ay nag nag kon yow ku seet sa jur gi ci par ay quarante ñetti quarante lay doon ku ko seet ci par ay trente ñeenti trente lay doon kon kay laaj asaka moom mooy seet bu ko neexee wàññi par ay quarante bu ko defee mu ñetti quarante mu jël ci yow ñetti machine na bu ko neexee mu wàññi par ay trente muy ñeenti trente trente bu ne mu jël ci yow tabiyu muy ñeenti tabiyu wa amal xana mu daal gàtt ya fa fii arbaxina nekk na ci ñeent fukk min xaaj ñoom chaatun benn gàtt jasaxun jasax bu góor lay doon aw jasaxat wala jasax min ad daani ci xar awil maasi wala béy gàtt mooy xar ak béy moom li fekk amoo ci quarante asak waru la boo amee quarante nag war a joxe benn gàtt benn gàtt boobu mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen moo xam xar la moo xam béy la waxoo moom maa mooy ba nga xam ne aw faa matal na sanatan at da ngay joxe ab gàtt boo xam ne am na at mooy doon asaka yi ñeent fukki gàtt wa fii ni ati nekk na ci téeméer wa ihda ak benn wax yi ak ñaar fukk chataani ñaari gàtt da dalee ci quarante ba ba ngay ñëw ci cent vingt doo soob benn gàtt bi nga day joxe cent vingt nag bu tegalee benn muy cent vingt et un foofu nga tàmbalee joxe ñaari gàtt wa fii mi atay ni nekk na ci ñaari téeméer wa chaatin ak benn gàtt talaas chien ak ñetti gàtt la dalee ci cent vingt et un ba ba ngay ñëw ci deux cent muy ñaari téeméer doo weesu ñaari gàtt yi deux cent nag bu tegalee benn muy deux cent un foofu nga tàmbalee joxe ñetti gàtt wa fii arbaxi mi atin nekk na ci ñeenti téeméer arbaxu chiyaahi ñeenti gàtt la dalee ci deux cent un ba ba ngay ñëw ci trois cent quatre-vingt-dix-neuf xanaa ba nga ñëw ci ñeenti téeméer yi manqué benn doo weesu ñetti gàtt yi nga daa joxe su ma tey ñeenti téeméer nag nga joxe ñeenti gàtt ba noppi na tàmbalee foofu di wàññi par ay téeméer téeméer bu ne ab gàtt lu jur ga bari bari rek boo xasee mat ñeenti téeméer moom la ca topp moom par ay téeméer ngay wàññi téeméer bu ne rek nga joxeel ko gàtt muy asakaam boo amee fukki téeméer muy junni nga joxe fukki gàtt muy wéy rek moo tax mën naa suma fii kulli mi addin topp nekk na ci bépp téeméer chaatum benn gàtt tam biixun li ak yeete la laatu xasu deful jàpp karaa imul amwaali tànnee fi alal ya ka ak walati niki ba bari ak lekk mooy bëgg lekk wal faxli ak kuy la wa zaati labani ak borom soxu ma waaye nag wala shiraaruha du caageenu seeni kees ba tey mooy yemaay ya ka saxla ti mel ne burtu war tey si akub tef wal xaajoo si ak bu màggat wal xawraay ak ajibat nee na kii laaj asaka suñu laa forcé ne la danga may jox sa jur gi gën a baax mel ne mu fekk bu bëgg lekk yomba yafal mu ne moom la yóbbu mbaa mu fekk kuy la nga xam ne mooy góoral yu jigéen ya mooy da koy yóbbu mbaa mu fekk barim soow mu ne da koy tànn yóbbu déedéet su fekkee sa jur gépp ay tànneef la boo mënee joxi tànneef ya baax na waaye bu la neexee nga ne ko daay wuti yu digg doomu ndax joxi tànneef yi waruma waaye nag ba tey doo sañ joxe yu yemaay fekkeen tey yemaay képp nga am it faaw nga ru faaw nga war a wuti bu digg doomu joxe doo sañ joxe bu ma tut ni ki mbortu mbaam tef doo sañ joxe bu màggat boo xam daa màggat ba yooyu amul njëriñ doo sañ joxe bu fatt bu am sikk déedéet kon daal dañuy digg doomoo yow rek dañ la force joxe sa alal ja gën a baax waaye doo sañ a joxe ju yemaay ja kon boo mënta joxe ci la gën a baax say boo seet wuti bu digg doomu joxe faslun li ab dog la fii zakaatil xarsi ci asakay mbay mu dugg na kon ci asakay mbay waxuwa moom almuqtaatu mooy la ñuy dunde almuttaxasu la di luñ jàpp lil xay si ngir dunde xaaliban ci la gën a bari nee na buñ ne mbay mooy loo xam ne manis na koo denc di ko dunde loola bu ma tee nisaab asaka war ca fatajibu dana war azakaatu azaka fil xintati ci bele wa shahidi ak lors wal ursi ak ceeb wa naxwiyaa ak lu mel na ñoom wa fil xataani ak ci giiri sabi kal xadas ni ki xadas wal basilati ak basila wal fóoli ak fóol wal ximmas ak ximmas wa fi tamri ak ci tàndarma wa zabib ak reseñ wa zaytooni ak oliw nee na kon nag yi mu tudd nii mees na koo denc di ko dunde ni ki bele ak lors ak ceeb ak lu ni mel ni ki suun ak saañoon ak xeeti gir sa bi ni ki yee mu ca wàññi xaddas ak basila ak fuul ak ximmas ak tàndarma ak reseñ ak zaytoon yépp asaka war na ci wala tajibu du war fil xasa bi ci ka tax suukar laa tajibu du war fil xasa bi ci ka tax suukar wal boqooli ak xeet lujum yi wattiin ak figg wal fawaak yi ak xeeti firiw yi firiw yi mooy wax payteef muy doom yi ñu lekk ni ki pom ak orange ak mandarin jëm noonu karrum maañ ni ki grenade grenade xeetu doom la daa wax ne loo xam ne kenn lu ko denc di ko dunde asaka du ca war mu ne ka taxu suukar wala xeet lujum yi wala figg ak xeeti firiw yi ni ki grenade moom mu wax ak yi ma tuddan léegi yooyu asaka waru ci wa nisaabul xarsi asakay mbay xamsat aw soxin mooy juróomi wasq waxiya moom nag wala waxiya ñoom bopp alfu ritlin mooy junni ritlu wa sittu mi at ritlin ak juróom benn téeméer ritlu bil baxdaad yi ci bopp waa baxdaad kulu ritlin bépp ritlu mi atu dirhami téeméer dërëm la wa samaaniyatun ak juróom ñett waa ishirin ak ñaar fukk dirhaman ci ay dërëm bi dirhami ci dërëm ba almakki yi bay ko ci màkka waxoo moom benn dërëmu màkka it xam soona juróom fukk la wa xumusa xabatin ak ñaari xumusi aw fepp min a shahiri ci lors ba al mutawasit yi bay aji dikk doomu nee na asakay mbay day bala mu laa war a mat nisaab nisaab mbay nag ma juróomi wasq ñi mu ko xam le nag mooy bu fekkee xam nga ritlu bu waa baxdaat ba a boo ca nattee junni ak juróom-benn téeméer mooy doon nisaab mu lay xamal nag ritlu bu waa baxdaat ba nu mu diise woon mu ne la benn ritlu bu ne war naa diise cent vingt-huit ci ay dërëmi yoon war naa diis diisaayub daal téeméer ak ñaar ko juróom-ñett ci dërëmi yoon dërëm yoon nag moom lay tolloolal ci pepp mi wax pepp mu lors mu ne la pepp mu lors mu digg doom moomu daal boo ca wàññee juróom fukki pepp jël wenn pepp xar ko juróomi xar jël nag yaari xar ya boole juróom fukki pepp ya loolu mooy diis diisaayu dërëmu yoon fekkee dërëmu yoon lay wax daal ndax da koo tudde dërëmu màkka waaye bu dee dërëmu yoon daal ñu ngi koy tolloole ak ñaari ngaraam yu tegal neuf cent soixante quinze milligrammes xam ne ko kon daal jàppal ne benn dërëmu yoon moom vingt cinq ci ay milligrammes moo ko teemat ñetti ngaraam waaye nag nu xamal la ne la daal bu ñu nee juróom wasfu mooy asakay mbay dañu wax wasfu mooy juróom-benn fukki saa te saa des na ko tolloo la ñaari kilo soo ko seetee ci noonu nag mën nga ne kon asakay mbay mooy juróom-benn bërigo juróom-benn bërigo daal mën nga koy jàpp ab takk-takk ne mooy asakay mbay la nga bay bu fekkee mat na ko mbaa mu ëpp ko asaka war ca bu fekkee matu ko nag asaka waru ca bu la neexee rek tibbi ci saraxe ngir yàlla wa innama tu'tabaru naka def na xalam al aw suqu wasqu ya baax da wadahima ci gannaaw sippi la nga xam ne fii haa nekk na ci ñoom minal xachafi ci tàndarma ji wow mooy maanaam mooy ji gooy waru toobaati ak ay tooy tooy nee na nag dañuy seet ba xam ku génne woon lu lu gooy la ndax la ca des dana mat ni saabam deet waaye kenn du ca wàññiwaale la gooy ba tey bu fekkee dafa tooy duñ seet ci tooyaay bi ba xam mat na ni saabam deet dañuy seet bu woowee dañuy seet ba xam bu woowoon dana mat nisaabam déet waaye ci doyaay bi moom fekkee ne bu woowee du mat nisaab ba tey asaka du ci wax bu tooyee dañuy wax ni waaw nii mu tooyee nii bis bu demoon bis bu demoon bu wow nu muy war a tolluwaay ñu ne nangam su boobaa nangam looy nag bu ma tee juróom-benn bëri ko nga xam ne asaka war na ci lii nga tiim muy sa mbay mu tooy mi bu fekkee ne nag du ko mat nag kon asaka du ci war wal muxraju la ñu génne min zakaatil xarsi ci asakay mbay alxushur mooy fukkeel ba fii maa ci la nga xam ne suq ya naan la def na ko min xayri machaqa ci lu coono kamaay samaay ni ki ndoxum asamaan wa nisful xushri ak genn wàll fukkeel ba fii maa ci la nga xam ne suq ya suuxateef na ko bi aalatin ci jumtukaay kat dawaali bi ni ki ay machine ak duulaab ñu ko daan wax roue d'irrigation ba nga xamee ne xeeti xarala yi bëreegut booba dafa aman machine boo xam ne dañuy wut daaba mu di ko tourné muy wëndeel di suuxat moo tuddoon at duulaab mbooloo mu nekk at dawaa liib daa wax ne su fekkee ne asamaan si mooy taw yow ngay bay kon buy génne asaka da ngay génne fukkeel ba mooy bu asaka waree ca la nga bay boo ko defee fukki xaaj benn bi ngay génne muy sa asaka su fekk yaaroon suuxat nag ak sa loxo mbaa machine boo doon suuxat ngay fay ca machine ba am loo cay fay kon na ngay joxe genn wàllu fukkeel mooy la nga bay boo ko defee fukki xaaj benn xaaj ba nga defaat ko ñaari xaaj benn boobee nag ci ñaari xaaj ya mooy doon sa asaka ci misaal soo aman ton fukki barigo te fekk asamaan si moo taw rek ngay bay kon benn bërigo bu ngay joxe asaka su fekkee yaaru suuxat nag mbaa da nga doon fay ca machine ba ñu lay suuxatal kon genn wàllu bërigo ngay joxe asaka faslun li ab dog la fii bayaani man ci leeral ga nga xam ne tusrafu def na jox laxoo ñeel ko azakaatu asaka tey bëgg a wax ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy jox asaka tudd faamu def na ko jiñ mooy def na ko jox rek li ahadil asnaaf yi ñeel kenn ci xeet ya ak tamaaniyat ya juróom-ñett al madkoorina ña ñu tudd fii xawli yi ci waxi borom bi temps laa kawe na ne innama sadaqaat naka asaka ya lil fuqaraa yi ñeel na way ñàkk ña wal masaakin ak miskin ya al aayata mott lil laaya ja nee na asaka moom ñañ ko war a jox su borom ci boppam moo ko waxal boppam ci laaya ji ci suuratu at tawba suuratu tawba kon nag ñu teqale la ko benn benn ci na ko laay ji indee al awalu aji jëkk ja al faqiru mooy aji ñàkk waxoo moom allasi mooy ka nga xam ne yam liku dana moom mooy dana am rek ache a dara la al yasiri lay aji néew allasi la nga xam ne laa yëg fii du ko doy li xay si ñeel dundam ba comme njëkk a tudd nee na mooy faqir faqir nag mooy koo xam ne am na dara sax waaye lam am doy koo dunde ci at ma képp koo xam ne daal amul lu ko doy dunde ci at ma amul métier mu ngi ko sukkandikoo amul kenn koo ko warlul kooka nees na koy jox asaka duñ koy jox nag kenn du ko jox lu ëpp dundu at nees na koy jox nag ku matee loo xam ne mën na ko yor ci at ma rek yem ca wa in kaana dem nekk na yem liku di moom nisaaban nisaab laa yàqoo mu yëg du taxaw bii ci moom wala bi xiyaalihi du caagéenu ci njabootam nga fa inna lahu naka ñeel na ko ay yàqu sa mu jàpp azakaat azaka nee na bu fekkee moom ci bopp am na lu mat nisaab waaye la muy mat mat nisaab doyu ko moom njabootam ndax ak njabootam ñoo bari ndegam doyu koo dunde ci at ma rek kon sañ naa laaj asaka sañes na koo jox asaka du tee nag bu amee lu mat nisaab war caa génne asaka ba noppi nag ndegam doyu ko ñu koy jox asaka moom itam ab taani ñaareel bi al miskiinu moo di ab miskiin waxuwa moom ahwaju moo gën a aajowoo min al faqir ci aji ñàkk ja waxuwa moom allisi mooy ka nga xam ne laa shay addi dara laxoo di ko ñeel jumlatan ci gàttal ki wax jumlatan ci bëbëstal waaye mooy ci gàttal nee na ñaareel bi mooy miskiin miskiin nag mooy koo xam ne moom amul dara dara far ndax da nga noon faqir mooy koo xam ne am na waaye lam am doyu ko dunde ci at ma miskiin nag mooy koo xam ne amul sax reerub tey ba amul sax ajub tey ku njëkk nag moom bari na lool ci suñ réew mi xëy na nag miskini moom taxu koo baree noona waaye daal ñu baree bari daal moom amuñu lu leen doy dunde ci at ma te amuñu fu ñu ko sukkandikoo ci menn métier mbaa kenn ku leen ko gàddul mu ci mën doon ci ñoo ñaar nag mees na koy jox asaka muy faqiir ak miskin waaye saratu def na sart fii ci moom miskin wa fi faqiir ak ci faqiir al islaamu ak njulit wal xurriyatu ak ngor ku nekk faqir mbaa muy miskin nag bala ñu koy jox asaka day fekk muy jullit tey gor ndax bu dee yéefar ñu jàpp ne asaka ak jaamu yàlla la warisu koo jox ab yéefar bu dee ab jaam itam nañu jàpp ne jaam sang baa war a gàddu ay mbiram yor ko da nga am na ko yor nag kon moom lorootul moo tax faaw day aajowoo faqir mbaa miskin mu nekk jullit boole ca tey gor boole ca jamono jamono ya amee teqale gor ak jaam ak taalisu ñetteel bi alxaamilu mooy aji liggéey ja xala zakaati ci asaka ja kasaax yi ni ki aji laaj ji asaka wa in kaana ak doonte nekkoon na nga ni yéen di aji woomal kay liggéey ci asaka ja daañu ko ci jox doon sax moom daa bari le alal ndax liggéey gëm ci liggéey moo tax ñu koy jox loola mel ne ka nga xam ne mooy dem di ko laaji ak ki nga xam ne moo koy séddale ak ka koy wattu ba du laatu yooyu ñëpp mën nañ leen caa jox bokki wut na dongo bi liggéeyal sëriñ ba ca tool ba kon dongo bay liggéeyal sëriñ ba ca tool ba buñ gisee loru na aajo woon na daal nees na koy jox asaka waaye bu fekkee loru wut kenn du ko jox arrabixu ñeenteel bi al mu allafat moo di ñañ miinal xulubuhum seeni xol waxum ñoom xawmun aw nit lañ kuffaaru ñu doy weddi yàlla yoon taw na def na leen jox tarxiiban ngir xemeem loo fil islaam yi ci lislaam al muallafatu xuluubuhum ni mu ko waxee ne ay yéefar lañ yoo xam ne dañu leen di jox asaka ndax bëgg leen a xemam loolu lislaam am nañu wax ne gannaaw bu lislaam dëgëree moom di su jox kenn asaka ngir di ko campagne bëgg mu dugg ci lislaam ku dugg ba noppi nag ci biir lislaam bàyyi ko ci kéefar ga moom manees na laa jox asaka ndax bëgg nga gën cee dëgër ak sax léeg-léeg ba ngay door dugg ci lislaam say mbokk dañ lay jàmbu xatal la maanaam nga loru kon nag jàpp nañ ne ba léegi daal kuy door dugg ci lislaam moom manees na koo jox asaka waaye nag asaka di su ko jox benn yéefa ngir bëgg rek mu tuub alxaamisu juróomeel bi arriqaabu mooy baat ya baat ya nag mooy jaam ya ba tax mu ne waxoo moom arraqiqu mooy jaam ba almuminu bay aji gëm yushtara def na ko jënd wa yow antaqute dee fi ko goreel wa wala uhoo te kilifteefam lil muslimina ñeel na jullit ña bu dee jamono yi jaam amee mën ngaa jël ci sa alali asaka jënd ci ab jaam boo xam ne jullit la mu daal di gore su goree na yow doo moom kilifteef ga kilifteef ga jullit ñëpp ko moom xam ne su faatu woon te amut ko war a doon ci askan kon day yóbbu alalam baytimaa jullit ñëpp bokk ko waaye duñu wax ne yow yaa ko jëndoon ci alali asaka ndax alali asaka ji moomoo ko yàllaa ko moom assaadisu ak juróom benneel ji alxaarimu moo di aji leb mooy ko amee bor waxoo moom man mooy ka nga xam ne istadaana leb na fii xëyri safayin ci dul ak deseer yi wala fasaadin du caageen ak yàq wala jidu tey du am wafaan ak matale mooy ak fay gu mat aw yakkoon walay nekk maa ko ànd ak moom maalu alal bi isaa day nii ci tolloog borom ba alxaarimu mooy ki nga xam ne daa amee borte la ko taxal di lépp farata ji wér la maanaam dundu bopp mbaa dundu njabootam ju far moo ko taxal di lépp lébu doon rek di noos ak a yàq di wax naa su ma amee bor rek ñu jox ma saka déedéet bu dee loolu kenn du ko jox waaye da nga amee ne bor daal te ci wér la lebee woon kon manes na ko jox asaka ngir mën a fay bor yooyee ba tey sax bu fekkee am na alal waaye lam am daa tolloog rek borom nga xam ne bu fayee jeexal ba tey kon kooku manes na ko jox asaka waaye nag ci sartub mu joxe lam yoroon ba noppi ndegam yor na loo xam ne mën naa fay bor ba waaye daa yem ci bor ba rek su joxee loolu ba noppi nag ñu mën ko jox asaka waaw su fay su jëlee lam yoroon fayee ko bor ya waa kay door ko jox asaka assaabihu ak juróom-ñaareel ji sabilullahi mooy yoonu yàlla wal muraadu lañu namm bi ci moom al jihaadu mooy jihaad duunal xaj yi ci dul aj yena wa fi sabil